ñu koy dalal ko nga xam ne rek moo di Ndamal Kajoor Idi ñu nan la. waaw maa ngi lay fay di sant yàlla di dellu di eh, wax ni alhamdulilahi rabbil alamina eh, palaato bi sax sawaruma woon a ñëw waaye kinaaw gi la mat lay penda ne ma jógal dem rek ndax dindi tuuma baax na. ndaxte bu dee dañ laa tee di la tiktok <laughs> ak a wax yenn wax yëpp dégg nga ndax waajoo xam ni xaayat na ba xaaju guddi jekki-jekki népp la ci tele bi dégg nga waxal ma ay wax yoo xamante ni bii xaw ma yan façon wax la kon leeral da ciy baax. Mhm. kon maa ngi sant yàlla di kontaan ci plateau bi di rafetlu. Mhm. Uh, teewaay bi. waa kay yow sax uh, uh, kii nga sama lanc mhm. léegi nag xam nga da nga seeti woon Ousmane Sonko. nga génn nga wax moom it mu génn wax ba pare nag dañu bëgg nga leeral ñu. wax ñu lan waaw jërëjëf xam nga Ousmane. buy nettali na wax ni yëf yi demee. waaye li mu nettali ak ni mbir mi tëddee daa mel ni guddeeg bëccëg. Mhm. waaw parce que bi ma toogee seetaan tele bi damaa mel ni ku ñuy pikiir. ndax am naqar goo xam ni gis naa ko ci waxit wi. Mhm. moom nee na bi may ñëw waxtu timis la. bi ma ñëwee nee na ma daa di mi ngi fu ko fekk muy xëdd mhm. noonu la ko noonu la ko waxe nee na muy di tiim beñe dugubam ndax daf koo bëgg ndax dafa bëgg beñe dugub mhm. nee na jabaram ñëw ne ko Ousmane Idrissa Seck ak lay seet nee na mu ne ko lu mu fi wut mhm. waxtu wii guddi gi ku ci nekk a ngi ca sa kër di xëdd ba noppi muy kii nee na après mu daal di dem wax xale bi ne ko nee ko kii bi mu ñëwee bay dem xolub jullitam tooñ ko mu daal wëlbatiku wax ko ne ko xaar ma ne na fekk ne maa nga lal basang di di si ba di julli ca bunt kër ga mm-hmm. loolu amul <laughs> nan la demee <laughs> xam nga loolu théâtre la mm-hmm. man Ousmane bi ma ko seetaanee mu wax ba pare dama ne kii <laughs> na dem daaray Kocc bindal leen mm-hmm. ndax lii mu wax théâtre la mm li mu demee nii la mën a demee xam nga ni fajar ku ko ñëw ci kër am nga avalu boroom kër ka dëgg la ndax di xam ni waxtu wi yeewu la mhm. du dëgg dëgg la ma daa di ñëw ca kër ga mhm. xanaa kañ man nii am na noo xam ni bu ma ñëwee mën nañ maa yuuxu sàccee dëgg la mhm. du dëgg dëgg la ndaxte ku ma gis xam ni ndaama la te it xàmmewuñ ma mu lëndëm tem ñu ne bu day toje mhm. léegi la na ma def ba ñëw ba ñu xam ne mana loolu kañ na ko leeral dëgg damaa ñëw fekk ko mu toog mhm. bi ma ko fekkuma fa sax beñe dugub ah. waaw mbuuraake ah <laughs> mbuuraake laa ko yow waxoo sa yow ci sa kii bi ba tey sa message bi sa waxoo ci wax mbuuraake waxuma ko voilà waxoo man waaye moom comme que dem na ba wax ko mhm. moo tax ma leeral ma mhm. fekk ko mu tiim mbuuraake mhm. ma ne ko waaw Ousmane Sonko na nga def mu ne ma maa ngi fi grand ma ne ko xam nga ni dañu jëm ci li nga xam ni mooy 4 avril waaw duñu seetaan ngeen di taal réew mi ni nga ko waxee nii laa ko ko waxee nii nii bi ko nii nii ne ko du seetaan ngay taal réew mi. kër Ousmane Sonko. waaw. Mm-hmm. après mu ne ma waa grand lan ma ne ko na dakk affaire yi day arrêté. Eh, yow kon da mu ne ma waaw waaye nag grand wax ko wax ko wax wax ko ko ne ko parce que moom it ma ne ko arrêté laa ah. parce que am na loo xam ni duñu ko seetaan. yow yaa wax loolu. jabar ji xool ma. da ko yow daal da nga jabaram. jabar ji toog xool. boobu garde corps mi fan la ne. garde corps yi mooy kii bi mooy limousine ñoom ci buntu ba laa leen bàyyi. Ah. ma wax ak moom joxar bi ko. ni ko lan. ne ko kii dañuy défilé ci ni boo bëggee nag mën nañ laa woo ci défilé bi soo bëggut tamit yaay seet. lii lépp wax nga ko indi te yow li ma jaaxal message bi nga wax da nga ni <laughs> yow message bu gàtt nga def te neex. message bi nga def da nga def message bu gàtt. léegi nag. tey nga ñëw fi di guddal. ma ne lii mooy la fa xew. bi ma paree ba noppi daal di tourné. Mhm. dal di ne ko nag pare naa ci wax ji wasalaam këppaale mbuuraake mi. mu ne ma eh, grand. idi damay dem de. mu ne ma grand. muy lan. cop dañ lay fekk waaw dañ lay fekk na la coppet jël daal bi wax coppet laa fel ni ndekete dal naa ci mbuuraake mu ne ma grand tour nga mbuuraake ma ne ko maa tey maa eh, bravo daal di génn mhm. garde corps yi ne ma grand idi ma ne leen allez dégage dal di ah. puus daal di ñaaj dem ah kon bi ngay dem lii mooy xew yow kon yow waaw non bi mu ma waa grand ndax di ba ne ko euh, fii laa koy loolu waxuma ko man ah. dinaa wax fii laa ko yaakaar. mais yow da nga ko oto ngi fees dell ak xëdd. de yow bi ngay dem eh, nee nga kanamam ah. gi moom da danga ni dafa feebar. feebarut kujj la ma def jàkkaarloog man. Ah. waaw ba noppi naan ma euh, man de grand naruma woor ma ne ko woor lislaam teg na la ko yow kon ma waxoo ko sax ni ko wooral par mm, force non non ko wax lu wooral parce que mën naa làqatu naan loolu mënuma ci dara ah. waaye dama ne ko lislaam teg na la koor yow nii nga ko yow de fi ne nii ngay waxee nii noo koy waxee yëf yi demee waaw ay wax muy bëlëf di soo man li ma jaaxal kay ni mu ko doon waxee ba sànni loxo yi sànni ko loxo waaw ak Ousmane mu jaaxle jom mi ak ci dëkk bi nii nii <laughs> jërëjëf jërëjëf mu nekkoon Ndamal Kajoor Idrissa